nga ñoom xamuñu fi ngay waxee parce que denduñu ak Wally dëkkuñu ak Wally Seck xamuñu li xew ci biir groupe bi ñoom xamuñu est-ce que ngi dégg ñoom ñi lay di nga xamuñu la mais li ngay wax lu leer nañ la lu am la te xoolal Wally Seck Wally Seck fi mu daanu waaw vocal yi laa lay tegalaat nga déglu vocalu ëmbët yi ba njëwu jàpp bi nin ko naroon a def nga xool xol lay waxee nga xam ne kii am na lu ko metti déglu nag yow laa koy tegal nga déglu déglu barki Seydina Muhammad déglu déglu déglu rek allo Badiane. loolu demee lépp jàmm. allo waaw. xam bu ma la jotee appel bee passé dafa am lu ma la xam nga yow lii lépp woon ko. waaw déggoo ma ne xam naa lépp. léegi nag baal ma wax affaire maanaam yow ci say tànk la nekk mënut a sotti ñuy jëm lii pour kii la yow loolu lépp xamoo ko. waaw xam naa lépp. baax na. a ñaaw a dem mais su non non problème bi mooy xam nga la mooy problème bi ëmmadi maanaam yow bu xam nga bu ñu tegee ñàpp nit ñi di ko jox xaalis nga ne tekk ñu ne da ngaa daal lay dugal a ak Sénégalais yi mais yow naan nga loolu. gën leen a muus ne leen sama doom la. maay papaam. waaw kontaan naa ci loolu. merci beaucoup. waaw dégg nga kontaan naa ci loolu foog sama sama sama jëm lépp boo ko xamee rek muy jàmm parce que man dama toog xam lu bëri. xam naa xam xam naa ba xam loo xamul yow. kon jeex na nee naa leen man foofu yow rek yaa fay sama waay yow kese bu dul yow du dëgg euro ñoom ñëpp mën naa dëgg seen ndey ñoom ñëpp nag laa wax. naa lépp xam naa lépp dama di ko def nii dama koo xam bu baax te yow doo dof <laughs> danoo yaakaar nit ñi danoo dof man kenn dofu bi rek. Ah, déglu rek xaaral. Badiane sa réseau bi dara baaxu ci sa réseau bi. yaa ngi dégg waaw non xam naa mais dama ne. waaw. dañ ma bëgg a def ci kaw Sénégal laa nangu dañ ma bëgg a dóor ci kaw Sénégal yi. pour mhm. ma perte man. Mhm. Mhm. déggu ma de. non loolu la kay ma jékki-jékki retiré wu dem sama yoon ci. ci anam yu noonu la deme ci bu ma ko gis nga noonu la demee gis nga gis nga lii waxoon naa la ko avant te yow xamoo woon lu bari loolu lay comprendre seen liggéey la ñoom ñooy def lii. xam naa léegi nag vidéo bi dama cee wax dëgg dëgg sa waay la neex lépp lu nu def mu xam na lépp moom la neex. moom la sax xam na ne dégg ko léegi déglu rek déglul. moom la neex muy am dañuy xam nga li fiy dëgg dañ koy wax man de damay wax dëgg rek. waaw dama ne man samay wax dëgg samay néew ci. dootuma dootuma dootuma dootuma wax dara en tout cas daal xam naa ne dañu foog ne maa la ko loo wax ko te ku la ci tudd ma dëgg ndeyam. a doon même ndeyu mi bu gën a wax sama xam moom. waaw na solo mais daal xam-xam ko mooy xam ne. bu ma defee yàlla xam ne def lu ma dox lu ma seet lu ma ngàkk loolu ma ñor du ma ciy gën a basé la dul feeñal moo tax du ma def loolu. dama ne la du ma dem du ma ma daay du ma toog. jeex na après lii nag dinaa voyage naat après ñaar ñaar. jërëjëf naa dem pour def dem jërëjëf mu ne damay tax xoolal dama bougé fii laay taxaw di sànq di kat seen lay. waxe non day amee seen Amérique pause bu ñëwee dana dëgg seen nday ñoom ñëpp. li nga wax yow yow aada aada li nga wax mooy dëgg Amady Badiane ba sénégalais yi toog naan Wally Seck mënul woy xamul dara moom moo jàpp ci ci mbagg Wally ba Wally agsi fii nii mook mook mook Ameth Diouf est-ce que yaa ngi dégg ñoom ñuy commenter rek wax ñoom xamuñu lu ñuy wax. xamuñu dara man ñoom li nekk Ramdan xamuñu xamuñu yow jàppal fi nga jàpp ba mu dëgër man ci dëgg lay dox kontaan naa ndey soxna jërëjëf soxna ku yor ay preuve toog kenn daa mën a wax moom ci ay loxoy kese nit ki booy wax ak moom sax nga jël loo teg sa loxo mais yéen leen dara ke xam ram daan maîtriser ko téye ko ci loxoom ku ma ci tontu ma dëgg sa ndey ngeen am lu ngeen expliqué ah man damay wax ak ay kañaman ak ñu tekkiwul dara man li may xeex sama dëgg laa nekk damaa bëgg lu baax ak lu baax ci waale waale leen bëgg waale rek leen gëm mais dañ koy wax dëgg ci dëgg la ni dox Boos maa ngi ziar. comme lépp jaam. nu mu demee. sant yàlla bu wér a wér kay. lépp tawfeex. ñu ngi sant bu baax. ah. waaw. ñu ngi lay déglu. mais yow daa mel daa mel ne yow maanaam li la naqari maanaam. eggalee ko si commentaire yi. dañuy wax ful la ñun tooguñu fi di am lu ñu expliqué. mm. man nekkuma fi di wax ak ñoo xamante si nii gaayen wax bopp duñ wax genn ñoo xam ne waale xamul seen day waale xamul seen baay waale du leen way lijjanti wu leen xamuñu sax fu dëkk ci senegal man ñooñu laay nekk di tontonte lool day nuru ñàkk fayda seen baay yi laay wax ak seen papa yi ñi nekk ci biir xam ma xam kan mooy Adamo Boss de Negri waaw ñooñu laa am lu may waxal mais waxuma ay kaña ak ay fan si gettu xara ki gettu bay man VIP laa VIP yi waxal ah, man dama am jot yéen wér ngeen yow. ah non wax nga dëgg way waroon nga xaar parce que Wally bind na ci plateforme ne moom dafay am réunion le huit. toog na pour organiser waat groupe am peut-être avant leneen balaa muy jëlaat yeneen programme yi tegloo comme décembre bi programme yi dafa tegloo woon peut-être amul jotu ah. programme groupe am mais comme que amoon na réunion le huit peut-être le huit boobu bu jotoon dina am yeneen nouvelles yu bees yu génn si biir Faramareen. non man kay damaa kii quoi damaa xaw a kii trop. temps pour mu pour mu defar ko. mais actuellement nii ak. publicité waaw mais Amady li mu wax tamit dafa daw yaram gaayen mais daw na yaram en fait. mais waroon nga ko may parce que moom instant yu toll nii programme am am na lu ci jot a fauché wu. waaw am na lu ci jot bi moom faussé wu na. am na lu ci jot a. faussé wu Amérique wax nga dëgg de wax nga dëgg quoi man mi damaa juum quoi. membre la ci en plus. wax nga dëgg de wax nga dëgg wax nga dëgg non damaa def erreur quoi. tamit bu mag la te mënoon na am tamit réew mi wax nga dëgg de. yow li mu la wax directement nga koy dégg moom dina ko wax. dëgg la dëgg la directement moom mu koy dégg. je suis naa déglu ci wax ci mu xaw wax nga dëgg kay wax nga dëgg maa juum quoi Sénégal yu dof yi rek. bul ci dugaat ah. mu tax sànq ba tey ma lay ah, wax. doo ban kay pare naa ci. am na yoo xam dama ko bàyyi sax. non bu ma ko arrêté bànn yaa awa ci laay si kanam. bànn yaa ak awa sax mën nga bàyyi comme nii. naa bàyyi ba ci kanam waaw naa bàyyi ba ci kanam ndax foofu sax dafa xaw a doy waar. da xaar bànn yaa awa bi après réunion bi jàll nga xam seen programme lan la. yow bu boobaa di nga mën a live parce que doo ñàkk ku la informé ci biir réunion boobu noonu doo ñàkk ku la wax li fa am comme mën nga déglu fii le 10 nga woote waat sa live parce que di nga comprendre lan moo xew ci boobu noonu. dëgg la kay. parce que instant toll ñoom ñu ngi tëralaat seen ay programme fi mu ne nii am na nooy publier wee rek peut-être nga yàq benn programme boo xam ne kenn ku ne mbébétam sotti na ça veut dire que dootuñu comprendre te lan moo xew biir Framare. dëgg la dëgg la kay dëgg la waaw Katou Sa maa ngi ziar. loolu ziar Adamo. merci beaucoup Aram ñu ngi lay déglu. ok merci Aram Diagne parce que dama bon en fait euh, au final Aram jaañ wax na nga nangul ko ko nangu nga def nga erreur. xam nga tey sànq ba léegi yaa ngi waxee xool parce que dégluwoo amaante boo dégluwoon ñi ñi yëkkoon a yëg. Ah, ah ñooñu dañuy ñëw pour défendre te man bëgguma kuy défendre nit ci lu dul dëgg man bëgguma lool de. waaw loolu dëgg la mais teel ma ko wax ma wàccee la non non damay déglu rek man damay wax sama point de vue ma kenn affaire Wally bi laay wax xam nga tey danga ne Pascal daf la ne Wally lu tax woowoo ko wala nga message ko nga ne boo ko woowee du jël wala day yéex a tontu. day yéex foofu man d'accord naa parce que tey Wally star la. Hmm. nekkul ne woo nga ko rek décroché na léegi léegi. Wally nekk nekk nekk star déglu ma rek. Hmm. lu nekk hmm. nekk nekk nekk nekk star. Ah, lu mën a doon star ci Sénégal. man ba aadama mboos day néegri empreinte bu waale marqué ci réew mi rek marqué naa ko wala mu marqué bu ko raw. dëgg la wala dëgg la ñëpp xam gis nañ li nga xeexal waale. ba ngay xeexal waale kenn xeexalu ne la lu mu mhm. marqué marqué loxoom man boos day néegri. Mhm. sama ci kaw. Mhm. man. marqué naa ko raw wala ma ma weesu foofu. <laughs> nga teg ko fan. ah ma teg ko fan ma teg ko ci li ma la moo am ban sénégalais. boo xamante si nii moo xam waale te xamul aadama boos day néegri kan la. loolu dëgg la mais aadama fit bi nga am nii def li waale waale amul fitu def ko. non waxuma la def lool de ñun waxu xamee la ni wax ak siiw da nga ne star. waaw sûr mais bokkul xam nga tey aadama waale yaa ko soxla. waaw waale soxla wala de yow yaa ko soxla. yaa ko bëgg non non waxuma yaa ko soxlaa soxla wu ko foofu yëggagun fa de da wax ne ma star la wala du yow yaa wax. waaw loolu laa la wax xam nga da yow xam nga tey da nga wax man da nga naan waali naan aadama bul fatawoo ma fatawu. waaw léegi nangu naa la loolu. nangu naa la loolu mais man fi ma fi ma bëggoon a ñëw mooy. boo ko woowee jotoo wala nga message ko liiru ko. waa parce que comme te am nga rapporté ak euh, kii de Amady Badiane man pour man te ab Amady Badiane boo ko woon appel vidéo nga ne ko dugalal waali ndax li ma bëgg li ma bëgg a wax dama ko bëgg a wax en privé da koy dugal. non non Amady am na lu ko naqari ci waali bu ñëw si yow di wax. déglu ma wax la li may wax fii laa koy wax. ku mu nga déglu comme mu arrangé wul nga génn. non c'est pas que mu arrangé wul ñun ñëpp ay faramaare lañ mais fi may waxee mooy. Adama léegi yow wax taxaw ne bés dina ñëw di nga saaga waal di nga ko laay bal. non lool loolu du ma sa am waxal li la fi direct wàcc. non non man li ma waxoon bu ma fa bëgg li ma fi doon wax c'était juste que nga booy defati genre yu mel nii nga xool bu baax fi nga li ngay def li nga def di nga ko rëccu. jërëjëf sa robe bu didim ngay mel net. ngattkatu foncé waale xamul sa nday xamul sa baay caga yu mel ne waale da leen di xam yow waale bu la gisoon doo xam ne kii mooy saa ndax sa xeeñaay dèjà yow sa robe bi nga sol rek ancé ah, kumba gawlo yi bin bin bin bin bin bin ma ne bin ak say njëkke booba laa ko gëjoon a gis dof ga yow waale dina la reconnaître yow damaa wut yow bi nga xam ne nii boo tegalee waale aadama mu ne mi ko sama rakk yow waale xamul sa nday sax nga naan looy teg doxat sa nopp nday fuddan sa taatu yaay nga xam Maodo Sylla. yaara moom. maa ngi lay ziar. ci loo ne. ça va lépp jàmm. naka alhamdulilah yaara moom. waaw. mais benn côté man li ma jaaxal. waaw. mais diggante Amady Badiane ak Wally Seck man problème bi foofu lu mu demee laa bëgg xam exactement. non dama chaque jour maa dégg man dama lay siiwul chaque jour. waaw ah. sa live dama ko tardé you know. mais man chaque jour damay dégg Adamo Amady Badiane ay njàpp ak man loolu laa xam instant problème bi fan la démarré. ay Baye Zale yooyu noonu chaque jour damay kii moom mun yow loolu yow ni ngay waxee nii mënuma laa toon da dem ci kaana yi nga laaj leen ko bu dee états nga de i wax ak nit ki naan ko bàyyi comprendre te xam lépp naan da ngay kaana kaanalu te anglais sax boo bëggee mënoo abrégé kattal sa nday laaji kot ñoom Obama ak len wari kër dégg nga maa len wari li lu ma la tegal tuuru ndeyam yow. Saalixaat maa ngi ziar. maa ngi ziar sama xarit bi. dëkk dëkk bi waay soxna Mena. Dieyna maa ngi déglu allo. dafa sa boobu ndaw bi mel ni bopp yaboy. sa bay sa garafaas bu njàppe boobu mel na mboom bu duus doomu xaram jeeg sa kanam gi net sili bu maçon ak sa ngaam yu dugg yi na porte oto sa bakkan bi nu doo famille Ama Balde sa lax yu pataa ngay mel na arbitre bu retraité boo fi duggaatee ma ripli sa dayu nday doxat sa nopp nday fuddan sa taatu yaay karale sa tuunu nday wekk sa lëfal nday radiateur bi dugalaat ko doomu xaram ji. déjà maa ngi lay déglu. alhamdulilah. salaamaaleykum. ça va Fama. Adamo ça va. ça va. yaa ngi si waaw yow nag. may sant yàlla bu baax. maa lay dégg moom li nga wax ndëgg la. Amady Badiane ku ko xam-xamandoo ko ak Wally ba Wally di doog a door te kenn mësul dégg Amady di Amady Badiane wax ci Wally lu ñaaw wala mu def ko ci Wally. ñu topp ñu kenn ku dul Wally. Hmm. te dañoo fekkee tamit commencement Wally ak Amady Badiane kon Amady bajaan bu génnee ba wax lii rek que dafa am lu ko naqari. dëgg la de dafa am ko metti te nag nit fu amee lu ko metti fu ko mën a jooyee rek la koy jooyee. Mhm. man kaas lu ma kenn man ànduwaale ak Amady Badiane lu ma neex la Amady Badiane xaw ma ko lu dul ci kaw seen waali mosuma koo gis. ci kaw seen waali laa koy gisee bu pare mu pare waaye xam naa nit ku baax la nit ku rafet xol la. dëgg la de waali nit ku baax la nit ku rafet xol la. Mhm. na waali indiwaat ay nitu démbam jaay leen teg ci wetam. loolu de laa bëgg. parce que am na ña nga xamante ne fi ñu jógee dañ koo tas tasaar. ñooñu mm-hmm. tey ji mënuñoo fexe ba seen label bi baaxaat wala mu nekkaat à top tey ji buñ ñëwee ci Faramareen yi ñu bëgg leen jaxase loolu Amady war na ko bañ Waly war na koo bañ surtout Waly sax ndax ku nekk xam na Amady ak Waly man kaas lu ma kenn Amady lay bañ mu bañ jógee ci Waly Amady dafa bëgg Waly ba gëmeewu ko buy xool Waly sax dangay xam ne kii daf ko bëgg dëgg la li ci des nag man mënuma ca wax mais amadi na ko waal indiwaat tafaat ko ci boppam melooteeg waal yi ni mu meloon ak moom. man loolu laa amoon ci lu may wax te sénégalais yi bàyyi leen gis nen ngeen du nen lii dëgg kese fi jub. aadama fi mu mën a waxeeg waal yi la waxeeg waal yi. fii la ko mën a wax fii lay waxeeg moom. affaire défense nañ ko bàyyi ñun ñëpp a bëgg a waali man du ma déglu kenn ku du waali waali sekk rek lay déglu. à part Wally lay déglu mais am na yaa nga xamante ne bu jotee nañ ko wax na indiwaat ay nitu démbam teg leen ci ay wetam man Youssou Dieng gis naa ni ñu koy def avant Youssou Dieng moo yoroon euh, wax ji léegi keneen lañ ko jël jox ko. moom it xam na lépp Youssou xam na lépp. waa léegi kon loolu yëpp na ko Wally defaraat indiwaat entourage bu baax mu indi ko teg ko biñ ko xamee woon ba Wally di doon Wally na ko indiwaat moo gën. li nga xamante ne fu ñu jógee taxaw takk seeni rajo wóor wut seen site internet taxaw yàq ñooñu xeme bés bu ñu bàyyee ci moom tamit nañ xalaat luñ luñ ko xamaloon dinañ ko wax. dëgg la loolu nag jar naa bàyyi xel loolu rek laa xamante ne may wax jërëjëf jërëjëf Fama Fama nag yow rax nga ci géwal day wax rek te du du jël ndox popo moomu dugg laa bëggoon a jël parce que dafa am lu